xar kanam yu fësoon lool si bi leen daje mu di ñaari photo activiste yu bokk ci coalition tournons la page yu nekk jamono gi ci yi yoon ñu teg leen loxo gannaaw jéego ñu doon def ngir rek sàmm ak aar seen démocratie réew Florian bi di journaliste sa Burundi ñu tëj ko tolloo ko fukki atu kaso lañ koy jiiñ moo di ne da doon jàppale ñu bokk ci kujje gi sa réew Burundi ak Prince Fadel bokk ci réseau artistes engagés yu Togo ñu tegoon loxo ci atum 2019 jàppoon ko ci lu ñeel mbirum Tigre Révolution sa Togo. coalition tournons la page profito si lancement activité yi fi si réewu Sénégal ngi rek sàkku si yile réew ñu bàyyi seen yile naataangoo. kii biir conférence de presse bi lancé nañ benn appel ngir ñu libérer suñu ñaari membre yu bokk tournons la page kenn ki nekk togolais di tudd Prince Fadel kenn ki nekk taskatu xibaar. fële ci Burundi ñu téye ko tamit. coalition tournons la page ubbi section fii si réewu Sénégal fas yéene nag gunge réew mi si lu soxal gën a dëgëral li nga xam ne jot nañ ko liggéey si lu ñel mbirum démocratie dañoo gis ni nag yoon la gannaaw rek lii fi jot a xew mu di manifestation yu xawoon a tàbbi réew mi si guuta gis nañ ko ci dëkk yu ñu wër euh, ñàkkum élection coup d'état yu bëri bokk na ci li gàllankoor euh, doxalinu démocratie ci suñu euh, af continent Afrique moo tax ñuy liggéey di lëkkaloo ak yeneen entité tournant la page yu nekk ci yeneen dëkk yu ci mel ni Guinée yu ci mel ni Mali ngir euh, gën a dëgëral suñu solidarité africaine jàppale leen ci yooyu les combats parce que Sénégal tamit en tant que pays démocratie am na exemple yu mu mën a joxe ngir jàppale yeneen dëkk yi nekk ci Afrique. li ñu bëgg mooy liggéey. ak kuréel yi nekk ci société civile sénégalaise bi yépp ngir ñu ànd xàccandoo dóorandoo ngir tabax Sénégal boo xam ne yoon dafi am doole du am gëllëgoose ba noppi démocratie dafi naat lool